Lele ma am ñoo bëgg sama njaboot damay ñëw damay ñaanal wala mu jox ma safara ma dem sama kër duma ko fay dara wa man dem ma ngi koy ñaanal yalla yalla nako yalla may téméré at yu mu dund ci kërëm gi sans ordonnance sans sunguf sans reen doolam ñindi euh, euh, alaaji mamad fawanam ñindi fo fawanam ñindi a ñinam tole ko na mor baati ñina mu na moro ndo mu salati ale a ah, ñing fenko la mu lo la mu ñindi Ah, moro bela ndamin do wolte be jande ha moro nyim fa um fa ma dinni wala ma tele en karande dinde sangi tan ni saba tele mara fayna suki bila han bi mam bala maro kono bawa nin dada tule ko ndan gasala tele maro kon min bi jam fa ndam gasala tele maro ah ah wala aha ma sha Allah wala mun yinke ba nyinde gafa ya alaji kawsu sise wala mun yinde ah tule kunna pakaw tule kunna be mo ma uluta ma kono ne faga ma kono ba fode mamudu ye lol lem yonuti ala si lol lem yonuti wala di sin tuba ba kam kanyen di jamaano ha wala lem yonuti wala mo toñati mbadi mandin ko la ana kam moy la la ale basi se la banke moy la min keta ala kordati on kat janto na tiada min keta cho sano ni ado de katun wala bimtel eh, vili saboboti bi momo ko kumbe kumpota rek nyamra bote kumpota min keta basi se la fanna la basi se ko alqur'ano ak momo le balunda la nyi jujota alqur'ano abe jikiri wala fane ala bar ala ta ko la fanande birane ne aka ne mamalu ay momo le dimma samba jeto inene ko mandimi so sokoy kono seydimi woto mo ala tentu balti momo momi ni mbur mbolañim ɓuur kol mo kon kon ka pat si se tentu ka jey rek ka fay ko ala dimbayal almay kela e barka fendi ak ko ko ne ka nyim ko kuwote rek alma kela e rabati rek ka ko ko ni ka ke nganiyo ni nganiyo la rek ala ka ganiyo ñin timmande woto almatine ala ganiyol be timma faala kañum kebar ñimmamin ke alma ala kana ke kensen alma ala kana bo alma ala kana pasi pasise kotobo ka fa pasi se rek ay duwam fane ka ɗum tele kutolo miyalon ko sayno ala commencé ñi nekk tan premier sortie de min keta pas sise yar koku ni fulo duwata rek ala kay sutura alma ala mbulo sutura mol kon fo nga koku ñi ne ñu ko rek ala ya ka pas sise woto la yi mol ma koy duwata ñu bata je nga ta sur wala fanna euh sur wala fanna mbe min fola wala min du mani ga taw bismillah fatia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 اللهم إنا نسألك لأفو ولعافية في ديننا ودنا ولآخرة اللهم أسترنا بسرك جميلة اللهم أسترنا بسرك جميلة اللهم افتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالهين من الخيرات يا الله اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أقول الكاتب لما سبق الناس الأكبر هذه إلى صراطك مستقيم ولا آله حق قدره مدار ولا آله حق قدره مدار ولا آله حق قدره مدار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم التسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام سلام سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ما شاء الله بجاه السيد الوجود اللهم صل على محمد الحمد لله te lu ñuy tàmbalee ki ñaan ñu ngi koy tàmbalee ki président de la république ak ministre am yu baax yi ak ñu ko entouré député yu baax yi ak préfet yu baax yi nga xam ne ñu bokkoon nañ ci sayeer ah ak jaboot ñi nga xam ne ñoo ñoo bokkoon ci commissariat ñu wax suñu doom eh, man jëkku léegi bokk na ci suñu mbokk ki ndimbal boo xamante ne mu ngi koy dimbalee ci gouvernement ci côté bi ndimbal gouvernement nag mooy fay fitna foo ko gisee kon nag ñu ngi leen di ñaanal suñu préfet Mbour ñu ngi koy ñaanal euh, suñu yaa Mbour ñu ngi koy ñaanal biir cadre gendarmerie ñu ngi leen di ñaanal parce que ñooñu bokkoon nañuy fay fitna pour toujours président ñu ngi koy ñaanal deuxième mandat bi yal na ko yàlla jox ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax di ñu koy dénk dëkk mbokk lañu kon lépp loo xamante ne am nañ ko mën nañ ki boole yal na ko yàlla jox waaw bu boobaa nag fépp foo xamante ne bokk nañ ci ñu ñaan ci yal nañ ci yàlla jàppale nañ ci loolu waaw parce que bari na yoo xamante ne eh, taalal nañu ci waaye taalal ci loxo yooyu lépp liñ ci taalal ak yal nañ ci yàlla nangul ki ñaan boobu waaw gannaaw boobu nag suñu télévision bi eh, ñu ko côté bi ñu ngi leen ni dugal ki ñaan bi ki digg bi lañu leen bàyyee yal ni yàlla génnal fu leen leen fu nekk fu yaakaar bi nekk rek yàlla ëppal ki njort bu mu nekk yàlla ëpp ko li mu leen defal te incha allah lépp luñ ciy def kaamil bi ki suba bu nekk dinañ leen dugal ki ñaan bi comme ñu baax yu Sénégal yëpp fu ñu nekk dinañ leen dugal ki ñaan boobu waaw gouvernement Sénégal ñu koy ñaanal ñuy ñaanal ñu koy doxal yëpp nag lu ci bopp bi ba ki génn bi yëpp ñu ngi leen di ñaanal guddi ak bëccëg kon bisimilah ñu bokk Faatiha góor ak jigéen mag ak ndaw yéen ñi nga xam ne yéen ñoo doxoon bi ñëw teewee ki émission bi yàlla yëkkat leen bépp mekkat bi ngeen xamee yàlla defal leen ko jàkkër ju baax boo xamante ne attan na leen yal na yàlla jox leen noonu seen liggéey bi nga xam ne moom ngeen liggéey yàlla def ci xéwal bu baax a baax a baax a baax a baax fu njortu nekk rek yàlla ëppal xéwal foofu waaw acca bisimilah fatiha bisimilahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad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 من سر نفاسات في الوقت من ضر هذه الجاسم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا رب رب الناس ملك الناس الاجنة بسم الله الرحمن الرحيم لي إلى في خلاص لا في مرة مرك لدى الشتاء وسيف فليعبد رب هذا البيت الذي أتامه من جوع وأمنه من كرب فليعبد رب هذا البيت الذي أتامه من جوع وأمنه من كرب فليعبد رب هذا البيت الذي أتامه من جوع وأمنه من قبل اللهم ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك لأفو ولأفيد في ديني ودنيا والآخرة اللهم أسترنا بترك جميلة اللهم أسترنا بترك جميلة اللهم افتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالهين من الخيرات اللهم افتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالهين من الخيرات اللهم افتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالهين من الخيرات اللهم صلي على سيدنا محمد فاتح لما أوخلق الكاتم لما سبق نسل لحق الحق هذه إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدره مقدار لجين ولا آله حق قدره مقدار لجين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام سلام سلام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 esa ruhullah muhammadu rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam allahumma amin ya rabbal alamin min ya rabbal alamin ya rabbal amin ya rab aywa jamano kottiɗi ɓe duwala e duwa saharinna na duwa kele ɗe gambandi bari sa kalamta ko be e télévision ñin to mbokkata jeele bi kotibi besiring kotti bi be sirin jang fan jewo fan ken ka alqur'ano karande janni mbe be kila ko ko dinga suba sare ngal alqur'ano no ba ngana yasi karan akunya nangamu ngo fana landi yo bi nga kotti bi duwo kono le bi inchallah nañu anda ak nyom ko janni ɓe kala ñande mi duwa simala ani jata kela wala mumnaɗumila fannala a sa kalamta ko ka fo ko bonal bokkata ñintele to de na duwa bije suto nintilo a sa kalamto ñama yo baɗi mandinkol allah émission no min keta cosanoni aɗoti natano pa sisé laya nin pa sisé kadiata ñamra be yamoye ñonnala wala ketane premiére sortie oti keta cosanoni aɗoti baɗo ñamra mbe rendez-vous dilalla inchallah ñu wato kono rek allah invité malaɓe kela jumalti mais à bientôt rek kono jandi woto almatina ale moɓe so kayrola almale so simani ani jaate kende ani hadde fir momoɓe kokunto nayatara kukendol almatina ale so sawante furel almale kafanni nema ke hajurɓe kullo iɓe anke almatina alay hajol be jara wulula fulolla duwa alman solal alman tankala oto masibo dimba masibo jiyo masibo borfeŋo masibo kata feŋo masibo be almatina alay misilmo be tankama bari alma alayen sutura alma alayen bula sutura mol kono wotala barka fanfan fo wati do inchallah